lay tee maa jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jommalul boppam soxna jaara soxna léegi kon nun ñëpp nu àndandoo déglu ministre bii nga xam ni fii rek la yaakaar wax naa ko léegi Alburi maamam digganteem ak Xaadim Rasuul ku ne xam na ko waaye yaram nag ak tegginam may na ko loolu kon ñun ñépp ñu ànd déglu ko bismillahi arrahmani arrahim wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulih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 maa ngi nuyu di ziar sëñ Muntaxa Bachir Mbakke xalif général kullu murit di nuyu njabootu sëriñ Tuubaa gi yépp di beral nuyu njabootu sëriñ Basiru Mbakke maa ngi nuyu mboolem njabootu cheikh sëriñ Tuubaa yépp di nuyu kilifa yi diine yi ak kilifay aada yépp sëñ bi ñu ngi ànd ak ci délégation bu am solo ñëw fii ci bés bi ñu ràññee ci ministre Mayacine Camara ministre conseiller sëñ Abdoul Ahad Mbacké chargé de mission Bara Sow ñu ngi ànd ak gouverneur de la région jàpp naa ne fan yi miin ngeen ko fi ndax bari na lu mu fi ñëw préfet département de Nioro ak sous-préfet Paoskoto honorable député Diema Ndiaye Ba haut conseiller Bara Ndiaye directeur général APROSI dëkk fii Nioro ak mboolem waa CRD maanaam ñiy liggéey ak gouverneur di saytu lépp luy jëm ci région de Kaolack sëñ bi dañuy tàmbali suñu kàddu di la ziar sëñ Abdourahman Fall Tilala. beneen démb bi ñëw fii ci yoon bi la yàlla def lu ko neex ndax gouverneur bi mooy wax sax que ne le 24 bi muy pare CRD bay génn la ñëw fii doon waajal ñëw bokk ci poroxaan ci ni ñun ñëpp far yàlla moom ko ci yoon bi moo ko soxnaam ak benn xaritam ñu la koy ziar bu baax a baax ndax man naam bu loolu amutoon tey dina nekk fii ci suñu biir sëñ bi amati naa mbégte lool président Macky Sall yabal ma fii ma jiite délégation bi yabal ma ci sama sëriñ sëriñ Mountakha Bachir suñu wayjur ci bésu màggalu poroxaan bi sëriñ Mountakha ku rafet ay jëf la ci lislaam lu jiitu ak xilaafaam ndax ku déggaloon ay waajuram la bi ay waajuram demee mu déggaloo nit ay magam topp ci seen ndigal tey jii moo fiy sëriñ Touba wuutu fi waajuram ya ak magam ya mu yore mboolem ndigalu yoonu murit kon lu mu ñu digal yàlla nañu yàlla may ñu nangu ko toppee ko ndax suñu njariñ rekk la ñuy sant yàlla ci teew gi ñu teewaat fii ci poroxaan ndax maam jaaratullaahi maryaama buso radiyallaahu anha yàlla moo ko tànnal ay maam ak ay waajur yu sell ci meen ak ci géño ñépp boroomi diine lañu woon maam Mouhamadou Bousso ñu gën naan ko Tabara Bousso ma Tabara Bousso moo di waajuram bu góor maam Aïchatu Mbakke ñu naan ko maam waajuram bu jigéen dund na mi ngi gane àddina Mbusoobe Jolof génn àddina fii ci Poroxaan dund fanweeri at ak ñett mu tolloo ak dundub yonentu yàlla alayhi Isaa alayhi salaat ibnu Mariama waaye dund gu barkeel la te bari njëriñ ndax ba mu fi jógeek léegi mi ngi ci téeméeri at ak juróom fukk ak ñeent bés bu nekk barkeem di gën a dolleeku ab liggéeyam di gën a feeñ nit ñi di ko gën a sopp boo delloo ci alxuraan dinga nga fa fekk aw turam ci bërëb yu bari yu wuute bokk na ca wa inni samaytuha maryaama loolu la yàlla waxoon aw turandoom borom xam yi ne mi ngi tekki ku amul sikk barke boobu moo nekk ci maam jaara mi mu nekkoon jaamu jaamukot yàlla bu sell ku yiw la woon ku daan joxe ay alalam la woon ci jaami yàlla yi ku daan defit lépp lu baax lu lislaam digle maam jaaratulaay sëriñ basiiru mbakke waajuru sëriñ muntaxa nee na jigéen ju baax la jigéen ju fegu la boroom diine la woon ku bari woon ay julli la woon ku bari woon ay koor la woon bari woon ay koor nag mooy yemul ci weeru koor ku mënoon a joxe alalam ngir yàlla tey nag nit ñi ñu ngi joxe seeni alal ngir yàlla ci moom maam jaara ku mënoon a topp ndigalu sëriñam lool sëriñ maam Mor moo tax sëriñam maam Mor da ko gërëm ba wax ni maam jaara musuma mere musuma merlo loolu mooy wane ne dafa rafet lu doxinam doxinu sëriñam ba noppi rafetal aw doxinam moo tax lépp lu yàlla di may jigéen ju baax daje ci maam jaara yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa dafa wax ne bépp jigéen bu nekk ci néegu sëy di muñ di jaamu yàlla di topp sa ndigalu boroom kër ba yàlla may la fa ñetti doom mooy nekk sa baaraas sa diggante ak sawara maam jaara nag loolu lépp dal na ko ndax yàlla mayoon na ko ñeenti njaboot sëriñ Mamor Jaara magi mag teg ci Cheikh Ahmad Bamba radiallahu taala anhu maam Abibulaay ak soxna Faati Mbakke Cheikh Ahmad Bamba wax na ne yàlla jéggal na sama ñaari waajur jéggal na ma it man Cheikh Ahmad Bamba lii rekk war naa tax bu sëriñ bi wootee ñépp war a rawatina bésu maam jaara nga xam ne ci moom la lépp dooree fii ak ñetti fan ñu ngi dëgmal le 8 mars ñu koy tuddee journée buñ jagleel jigéen yépp ci àdduna ñépp nangu nañu ne maam jaara royuwaay la ci bépp jigéen sëriñ bi àdduna bi fan yi nag yëngatu na ndax am na lu ñu fi ràññi feebar bu bees bu fi dugg si ci àdduna tàmbali bër bërki démb dugg si na Sénégal muy feebar bu doy waar ñu koy tuddee coronavirus wala covid 19 lu tax mu doy waar ndax dafay loo xam ne lii mën na laa dal mu toog ci sa yaram ab biir doo ko xam te diggante boobu mu nekk sa yaram mën nga wàll keneen koo xam ne kii xamu ko xamuloo ko feebar boobu nuyoo joxante loxo ñaq wu jaxasoo tisoo li yu jaxasoo loolu lépp daf koy véhiculer moo tax ñuy wax senegale yi ñu bàyyi ci xel ndax feebar boo xam ne bii mënuloo ko gàttandoo ndax ñàkk bu koy tere amul garab gu koy faj génnee guñu ko làmbatu rek moo fi nekk ba yàlla def jàmm ku ne dugg si na sa kër nga war cee bàyyi xel ñuy sàkku ci askan wi ñu bàyyi xel ci lépp lu ñuy def ndax sunu boroom musul ñu ci feebar boobu ginnaaw bi ñu waxee sëriñ bi mu ñaanal ñu ci ñaanal ci réew mi ñu mucc sëriñ bi président Macky Sall mi ngi feddali kóllëreem ak sëriñ Mountakha yaakaar bi mu am ci moom moo tax mu delluwaat ne na ko ñaanal yàlla may ko li nga xam ne lii sumb na ko ci réew mi mu doxal ko ak sagoom yeggale lépp lu yéeneem ci réew mi gannaaw bi mu ko ñaanalee woon daaw ba yàlla may ko mu jotaat ci réew mi xam nañ sax ne moom ñaanam musta jóg ci président musta jóge ci réew mi maa ngi leen di sant yéen ñëpp te di leen gërëm man ak ñi ma àndal di leen baalu àq te di leen baal asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf sëñ Touba. jërëjëf monsieur le ministre tubaarkal dégg nañ ko rafet na lool.